ربي بما يسرون از انا قد فجاء بجاي أفضل من لله قد لجأ حمد لرب الكريم من لا شريك له جوتات نونو ديغال سيرني مونتا خامباكي خال جنرال ديمور يالنا في ياغول تا اند وير جار نك sëñ Bassirou Mbacké moom sëñ Abdou Khadre porte-parole général xalif général des Mourides ak sëñ Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ni nag mooy cellule communication màggal Touba waaye ñoo nag suñu jàmbaar yi suñu jëriñ Alaaji Mbacké Faye mi nga xam ne moo yor baatu xalif général des Mourides ci biir Ndakaaru ak li ko wër ñu jëm nag ci bis bi ñëpp doon nekk ba boobu bis doon samedi le 20 octobre nag muy wàccaay safara rek fii ci grande mosquée Massalikul Jinaan ndew bis bu rëy mboolem daayir yi nekk ci biir Ndakaaru ak la ko wër di si gisal alaaji Njaga Gay ci Tuubaa Sandaga alaaji Góor Sekk mi nekk Pikine ak dooke maar ca Wakaam Baay Bay Silla jàmbaar Tuubaa Yëmbal Cheikh Mansour Diouf ca Yoof ñu ngi ko yëgal ak kan Cheikh Makhtar Diouf Wakaan xaqan ak kan Sëriñ Moodu Géey ca Baye Ndiouga Dieng ñaari guddi Ndakaaru yi sëñ Massamba Ndong Touba Kër Mbay Fall Maguette Diop Touba Buntu Boor ak kan mboolem fédération daayira Maam jaar yi nekk biir Ndakaar ak ak li ko wër ñëwal yëgal bis danañu ci yeneen daayira yi léegi waaye ma jox nag kenn ku ñëpp xam sëñ Mamour Mbaye bis bi nag nan lañ nan lañ ko war a woote. mbir moom buñ la ci dee deewoo te nga xam ni ci la sa àdduna ak alaaxira ne da koy fonk nu ko kenn fonkewul Sëñ Tuubaa defal nañu loo xam ni. bu nu ko wooteelee fii ci Masalik muy bis bi nga xam ni ci la ñu am lépp kon li nu war a def mooy euh, solu mbubb yu rafet yu murite ñëw teew la vingt fii nu àndandoo kook taalibi Serigne Touba yi àndandoo kook sëti Serigne yëpp man nag léeg-léeg nga dégg murit ñu woote ca poma mu dem nu woote Serigne Touba du ñëw te poma boo demee da ngay fay fii nag fayikunu la dara kon yaakaar naa ni bu dee danoo jaayanteeg Serigne Touba nu woonu ci lii kenn ku ci nekk bo déggee li moy sa carte invitation rawatina banlieue Dakar bu ben daayira dess kurel yi bu ben kurel dess duruskatu xasaayit yi lañ ci gëna soxla bisub Serigne Touba la na ñëpp ñëw nu waaj magal gi ndax bis bi liko ci yalla fay neena bu ko bu ko ko doon ñaan sax rus na ko koo ñaan te tay la ma sa woote ndimbal kay leen sant le yalla kon li nu wara def moy ubbee ko fi jëm Touba. serigne Mountakha mo joxe ndigal nañ ko waajal ko daan wajalé bis bi nag ñëw na ñu koy waajal ñi soññi daayira yi yi nekk ci réseau de Dakar góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina marché yi ñu nekk ci marché ñoom ñëpp maa ngi leen soññi ñu def ko nañ ko daan defee noonu ñaanoon daaw fekk ren kon buñ ko fekk nañ ko waajal nañ ko daan waajalee bis bi nag bis sëñ Tuubaa la te kenn ku am sa bis ku nekk sëñ Tuubaa nga ci yaakaar kon su sëñ Tuubaa bu wootee ne kenn ku ne def def li nga man ak li nga mënul kon ma ngi soññi ñepp daayira yépp gor ak jigéen mag ak ndaw liggéey bi nag keroog bi ko Cheikh mon leen baara sosé diglé ko ñi ngi ñaan saamorom dolli ay leeram taas ci barkem teg ko ci loxoy jàmbaaram ji di di Cheikh Basiru mu Cheikh Abdou khadir Khadim Rasoul mu ko ci jàmbaaram ji ñu dendal mu Cheikh Abdou lat gayne Fatma ànd ko amer Saloum Dieng boobu ba tey la cay cërub Masalikul alaaji Mbàkke yu fay jël ko ba mu mat lu nu fi mas a def lu ne daanañu woo woo boo la ñoo prestataire bu ñu defal bâche ñu ko war a def loolu it defaat na ko ba bés ba yelloo ak li dëppoog bés bi ak ni mu yelloo ci bés bi fab ya cay jëm ci yëpp ngir organisation war tegu ci yoon ba ku ñëw gis sa bopp lépp alaaji Mbàkke yu fay fàggul nañu ko teg ko suñuy loxo ba dinañ ko jëf incha allahu taala ci turu comité d' organisation du grand magal te sëñ Abdou Lahad Mbacke Gaynde Fatma teewal leen fi xam naa buy tëj dina jotal message bi nga xam ne moo jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha jaar ci Cheikh Mouhamadul Bachir waaye ñun ginnaaw dañoo booleeg sëriñ Mbacke yu fay mi nga xam ne moo féete fii ci Ndakaaru di coordonné mboole seen dundal safar gi nga xam dañ ko def diiru weeru safar feeñ nga xam nañ ko defoon daaw def ko daaw jéeg dañuy jóge fii ànd ak sëñ Mbacke yu ak waa Masaliku Jinaan ak mboole seen jëwriñ yi fekki mbokki taalibe yi ci gox goxaan ci biir Dakar ak li ko wër noonu la ko sëñ bi joxaat ndigal ren ni fépp fu taalibe ne ci biir ndakaaru dañ ko fa dundal te ko ci sëñ Mbàkke yi fay mu yëg ko ak waa Masaalikul Jinaan bu ko defee bu ñu demee ba àgg ci bisub ñaar fukki uh, fan incha allahu taala ci weer wii Cheikh Abdoul Ahad jógee Touba ànd ak Cheikh Mahamadul Bachir ak délégué ak ña ñu war a àndal ñu ñëw fekk tëj gi fii ci Masaalikul Jinaan kon ñu ngi ci woo mboole seen daay yi di ci woo kër diine yëpp di ci woo association islamique yi di ci borom xam-xam yi waaye rawateen di ci woo njaboot Sëñ Tuubaa gi nga xam ne mooy féete fii ci ndakaaru ñu beral ci wootee Cheikh Mouhamadou Kara mi nga xam ni at mu jot day ñëw wétli ci jëriñ Cheikh Ahmad Mbacké yu fay taxaw ci taxawaay bu rafet feeñal ci pas-pasam ak jëfam ak taxawaayam ñu ngi ciy woo daayira yëpp di ci woo taalibe yëpp di ci woo waa Ndakaaru yëpp di salaat ndigalu fu waaye nekk ci biir Ndakaaru ak li ko wër waxuma la Ndakaaru waaye ci biir Sénégal sax sëñ bi joxe na ndigalu nañ dundal safar gi fépp ndax comité d'organisation ñoo daan wër di taxaw loolu léegi loolu ab joxoñ na woon joxoñ bi nag mooy léegi ndigal li mooy na ko ñëpp jëfee kenn ku ne fa nga ne te soo ko jëfee li gënoon mooy Euh, jëwriñ dafa neex yëg ko bu ko defee boo koy tëj ñu ñëw wéttule ci bi ci loola ba ñu xam ne lépp ci Sëñ Tuubaa lay tàmbale ci Sëñ Tuubaa lay te lépp dañ koy def ci kaw ndigal woote bi nag yëgle bi ku ne xam na weer wi nga xam ni moom la ñu dëgmal weeru safar muy weer wi nga xam ni bii mooy weeru màggal gi nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa ni nañ ko ci santale yàlla di fekki sëriñ bi fële ca Tuubaa ñun taalibe yëpp ak jullit yépp e, bu feeñee àllarba benn fan ba di alxamis ñu bëgg li nga xam ne lii moo jiitu woote bi sax nga xam ni mooy lii nga xam ne dañ koy def fii ci Massalikul Jinaan di ko def gaaw bii ñëw bi ci tegu muy le 20 octobre dañoo bëgg fépp foo xam ne bii taalibe nga fa fepp foo xam ne jullite nga fa cim réew ci réew mi bu weer wi feeñee li ko tàmbalee ci benn panu safara bi ba ba ñuy dem Touba fépp fu taalibe nekk ak gox bu mu mën a ne ak goxaat bu mu mën a ne ak ci réew mi mu doon bitim réew mi ñu màggal li nga xam ne lii commencé di teeru li nga xam ni mooy suñu bés bu màgg bi nga xam ni lépp lu ñu am ci lañ ko amee muy fukki fan ak juróom-ñett yi ci weeru safar ñu tàmbalee ko nag ci bés bu njëkk bi nga xam ni dañ koy dundal guddi di ko dundal bëccëg ba ba ñuy dem Touba ci serigne ba Cheikh Muntaxa mi nga xamni magal gi moy magalam gu jëkk ñu def ci no xamni ni magal musine mel ndax mom taalibeb serigne Touba la bo xamni bi yag na and ak ku fi nekkal serigne Touba dila jappalé dila gungé ba liggéey bi nga xamni mom nga bëgg liggéeyal serigne Touba nga liggéey ko ni ni ko bëggé won tay ji nak mom la yalla dogal ni mo nekk ci kanamu njabot gi nekk ci kanam talibé yi kon ñun talibé yépp war nañ ko delloo njukkal ba magalam gi nga xamni mom lañu jublu mu nekk magal go xamni bi ba àddinay tukki dañ koy fatlikoo niñ koy fatlikoo nak moy ñu wajal ko wajal bo xamni bi fo xamni fi talibé nga fa mo xam kenn la fa ne wala mu nekk fa junne niko ko suñu sang bu baax ba waxé won sëñ Abdoulaye mbacké nañ xamni talibé taalibe Serigne Touba nga fa te mi ngay wajal bëss bi nga xamni lepp luñu am mom mom ci lañ ko am du ñu du caaginu rek sax murit bu mu am waaye lépp lu jullit am bi fi sëriñ bi demee ci tukkeem ba ba ba àddinay tukki ca bis bu tedd boobu la ko amee kon ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci soññ suñu bopp di ci soññ taalibe yi surtout na waa ndakaaru ak li nga xam ni moo ko wër ñi ne bitim réew it ñoo ngi ciy soññ suñu bopp di leen soññ woote bii nga xam ne nag dañ koy def fii ci pàkkub sëriñ Touba bi di samdi comité bi nga xamni moy comité d'organisation magal bi nga xamni ni et eh, eh, nañu nañ wo xamni wi bu magal gi jubee mo xam organisation yañ cey def nga xamni dañuy ñuy wutal spécial bo xamni fi lañ ko defee ca Masaalikul jinan ñoo bëgg ñëw ak talibé Serigne Touba yépp ak ñi dëkke Ndakaaru ñu def fi ak guddi goo xam ak bëcc go xamni bi bii lépp lu ñu mu jëm ci magal gi dinañ ko fi waxtaane

ñoo ngi leen di woo ci daje bii nga xam ni mooy le 20 ñu waajal màggal gi fekke ko ak jàmm taxawu ko ak jàmm waaj lu ñu am lu gën ci ñun ñu dajale ko yóbbul ko sëñ Muntaxa ñu màggal ko màggal goo xam ni ba yomal xiyaam dañ koy fàttali ko ñi ngi am mbégte mu rëy ci teew fii ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Muntaxa di xalif général des mourides ak ci turu Serigne Bassirou ibnu sëñ Abdou Khadir mi nga xamante ne bii mooy président comité d'organisation bi euh, ni mu ko daan defee at mu nekk dafa jox jëwriñ sëñ Mbackiou Faye ndigal ne ko kat bis ba nga xam ne dañ ko daan waajal ndakaaru ren ji nañ ko defaat te gën ko fonk biñ demee nag ba ak si yëgle bi mu demee na nga dem boo demee nga teew fa ngir ñu xam ne ndigal loolu yi man naa ko joxoon mbakk yu ñu yëgal ko mbooleem mbokki taalibe yi yëgal ko mboolem mbokki jullit yi yëgal ko mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu bokk réew mi yëpp ngir ñëpp teew fi fii ci Ndakaar ñu waajal fi màggal gi kenn ku ne xam na ne wàccaay màggal gi mën na fukki at at mu nekk ñu defee ko fii ci Masalik te at mu dikk mu ne mooy raw fuuf daaw ren jii nag nekk loo xamante ni lu bees la ndax dafa dëppoo ak màggal gi nga xam ne mooy màggal gu njëkk gu Cheikh Mouhamadou Mountakha muy ki nga xam ne mën nañ ne moo nekkoon jëwriñu liggéey bi ndax fépp foo xamante ni mos nañ faa woote moo xam colloque la moo xam lu mën a doon mu mën a dikk teew fa teewal fa suñu wajur baax ba Cheikh Sidi Maxtaar mi nga xamante ni moo daa joxe ndigal li te kenn du ko fàtte ñu koy ñaanal suñu borom fay ko liggéey bi nga xam liggéey na ko Serigne Touba kon nag Cheikh Mountakha tey ji mu demee ba doon Serigne Touba kenn ku nekk ñu nag war ngaa walbatiku nag delloo ko njukkal taxaw boo xam ne daana ko taxaw ci wetu magam yi te tey jii sunu borom def ko Serigne Touba loolu moo tax kenn ku nekk kenn ku nekk ci ñun waru ci am sago kenn ku nekk ñun daraam waru ko fekkee moo tax màggal ren gii di màggal goo xam ne màggal gu spécial la loolu moo sabab sëriñ Bass am programme boo xam ne teg nañ ko mu nga xam ne bàyyi wuñu dara muy conférence yoo xam ne yu bari la ci njëlbéenu safar gi ci lañ koy tàmbali ci njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi ca ca jumaay Touba ja di ko wéyal ci conférence yi nga xam ne ñu ngi koy def am na conférence yoo xam danañ ko def Mbacké Bool am conférence yoo xam danañ ko def Njaareem ak conférence bu rëy bi nga xam danañ ko def fii ci euh, fii ci Masalik ak penc yi nga xam danañ fa dem ca Touba le danañ dem kër Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne le 17 dem kër sëñ Cheikh Hafsa foofu itam def ay conférence yu am nag bis boo xam ne bis bu am solo la ñu koy def ci li nga xam ne mooy li sëriñ bi indi mu aju ci wàllu université bi nga xam ne taxawal na ko Touba mu ne université Cheikh Ahmadou Bamba ñu di ko defal ci ñaar fan ak juróom benn ki safar muy le 16 safar ñu ñu fas fu yéen dajale mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne ña ngi ci biir Touba ak mbooleem kàngam yi nga xamante ne bi ñu ci biir Sénégal fa yi nga xamante bi sëriñ ko muy université bi te war koo tàmbali war ko tijji loolu di nekk bis boo bu am solo la ñu koy def le 16 safar bokkul nag ak conférence yi nga xam dañ ko def ci bisu màggal gi ci suba gi ak ci ngoon gi di ko li nga xam ne cérémonie officielle bi kon muy màggal goo xam ne dañ ciy dugg ñëpp xam ne kat màggal gi mus a am loolu moo sabab itam wax nañ ko léegi sëriñ bi joxe ndigal ci mboolem Sénégal ak fu mu ci man di doon ci région yëpp fenn fu nekk bu safar teroo rek ba ca keroog ñuy màggal si ñenn ñu nekk nañu dajaloo ànd ko ak ña nga xam ne ñoo fa teewal sëriñ Touba di fa waajal màggal gi di fa def safar ba sa àdduna sépp xam ne kat weeru Serigne Touba yi dikk na màggalu Serigne Touba gi dikk na ci ñu ngi ko waajal di ko fas yéene defe gi nag tubaab bu ñu àggee ba ci 18 safar incha allahu rabbi loolu mooy ndigal li ñu ngi ñi ngi xaar ñëpp le 20 octobre fii ci Massalikul Jinaan bis bi ñuy woote di le 20 di bis boo xam ni bisub safar la sëriñ bi joxe ci ndigal pour nu woote ko fii ci Massalikul Jinaan ñu ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp di ci woo jullit yëpp maa ngi wax nag képp lepp euh, képp ko xam ne yaa ngi wër Masaalikul Jinaan di daayira yi nekk cité port Grand Dakar HLM waago ñaay euh, Tilène te nga waroon a safar le 20 na nga defar say beñe defar say café togg say sandwich indi ko fii ànd ak sa mbooloo ñëw fekk suñu fii ci di woote fi ci Masaalikul Jinaan yàlla na nu ko sama borom mottali màggal gu ñu mas a màggal yàlla ci bii dàq ci barkab Xaadimu cheikh Bamba maa ngi sant nag mboolem ko fi toog rek tey ñaanal sama rakk sama xarit mbàkk yu fay sama yàlla may ko gudd fan may ko wér li mu sémb yàlla na yegg mbàkk yu yàlla boo gàtt fan ci doole Seex Ahmadu Bamba yàlla na sama doo doole dimbale ba du jaar ko fan ko daan jaar ci barkeb Serigne yu Mbacké di woote nag ci turu mboolem daayira yi nekk Dakar ak kuréel yi nga xam ne ñu ngi Masaalikul Jinaan ñëpp woo naa leen li ko dale Ngor ba Sébikotane nañ ñëpp ñëw ku yor daayira ku yor fédération ak ku sopp Serigne Touba ñoo ngi lay woo ci safar bi ñuy def samedi bii di ñëw bu dellusee di woote yi nekk ci turu ajaratu aram ndax nekku fi di woote ci Fan Mbàkke aaj di woo Adja Ndey Mbaw si njili maam jaara waaye ñoo ngi woo Soodo Xuma mi nga xam ne moo jiite julli géej gi bis baa ngi nii samedi le 20 octobre fii ci Grande Mosquée Massalikul Jinaan bàyyiwuñu kenn ni